Ah, ben, monsieur John, comment ah, ñu ngi nuyu ñëpp euh, di sant ñëpp di sant nag euh, avantu yàlla subhaanahu wa euh, di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, di gërëm sama ñaari waajur ñun nag dañu am fierté ak confiance dañoo àndandoo ñun waa Tassette yëpp. 46 conseils yëpp incha allah ñu ngi nii dañuy ñëw voté ci jàmm àndaat ci jàmm ñibbiwaat ci jàmm lii nag dañu ñëw rek pour confirmer résultat wu référendum bi pour wane ni que président Macky Sall désormais moom moom département Thiès. waaw incha allah dañuy gagné largement bu yàlla. onze collectivité locale sur douze ñoo àndandoo muy mouvance présidentielle bi pour ñëw àndandoo voté ndoo gis ngeen niñ ko defee ci campagne bi dem nañ ci collectivité locale yëpp waxtaan benn bokk yaakaar bi ñu àndandoo ñun ñëpp muy euh, waa PS waa AFP waa PIT LDM ak yeneen coalition yëpp topp ci ginnaaw. le président Macky Sall def nañu commune yëpp euh, xel dal na alhamdulilah rabbil alamina yi doon kii ak yëpp def nañu réglage yëpp tey daal ñëw rek voté la gagné avec un large score waaw macha allah taseet moom euh, opposition amatu fa parce que euh, ñaar ñi nga xamante ni ñoo nekkoon kenn ki réew mi kenn ki PDS. rejoindre nañu donc Tassette moom 46 conseillers sur 46 ñooy voté tey ci bisu tey bi ñoo àndandoo ni incha allah pour le haut conseil des collectivités territoriales bi. Momar Ciss maire de Kër Moussa euh, tête de euh, de la coalition benn Bokk Yaakaar. waaw impression yi ñu ci jëkk am daal mooy d'abord sant yàlla pourquoi parce que lépp mu ngi déroulé ci jàmm. Euh, nit ñaa ngi ñëw di voter ci calme nit ñaa ngi ñëw di voter ci vraiment parce que ñi fi nekk yëpp ay mbokk la ñu xamante woon lañu euh, démb ak bëkk démb ñoo doon ànd sànq be léegi am na ñuy ñëw may nuyoog ñoom di accolade ak ñoom xëy na sax bokkuñu fu ñu jëm mais parce que hier on était tous ensemble parce que je me rappelle très bien euh, dans cette école. Euh, voté woon nañu fii euh, le Sénat fii lañ ko voté woon avec beaucoup de gens yoo xamante ne tey ñu ngi fi bien que nag y de des nouvelles têtes mais cela n'entrave rien au bon déroulement vraiment du ndax li ñu fi gis ci suba ak léegi dal na suñu xel bu baax a baax a baax dal na suñu xel bu baax ndax ñëpp ngiy dem di voté ci calme ak ci jàmm. Mhm. Hmm. waaw choix bi xëy na sax mënul nekk unanimité à 100 pour cent mais pourquoi parce que c' est des frères yoo xam ne hier avant-hier ñoo nekkoon donc man gis naa ne tey euh, quel que soit Alpha euh, bàyyee nañ ma xel. parce que vous voyez que beaucoup de militants du PDS ñu ngi fi te ils sont venus pour voter sama liste loolu nag li muy wax ne peut-être peut-être je dis peut-être euh, xëy na nekkin wu rafet wi nga xam ne nekk woon nañu ko démb te it fas yéene wu ma en tout cas euh, ci sama côté loola dañ euh, ndax maa ngi liggéey au niveau de département au niveau de commune au niveau même de la commune de Thiès pour tous nos frères libéraux yi nga xam ne démb ak bëkk démb ñoo nekkoon au niveau du PDS pour que ñu mën ma rejoindre ci kaaw APR pour que ñu mën a liggéey pour lu développer réew mi ndax loolu moo am importance voilà merci beaucoup. Madame Yeyali Cissé candidate de benn mbokk Yaakaar pour le Haut Conseil des collectivités territoriales. Mmh. ñun daal ñu ngi sant yàlla suñu xel dal na parce que boo gisee li ñëw ci centre bi nga xam ni lii lii ñu sos ñu ñu jëm si lu am solo la si le peuple sénégalais donc ñun ñu ngi sant yàlla bu baax parce que dafa am ñoo xam ni fii Sénégal euh, fii Thiès dañoo woote boycott mais yéen journalistes yi seede ngeen balaa huit sax centre bi fees na non non non suñu xel loolu lay wax ñu ngi sant yàlla parce que dem nañu fu ñu war a dem waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal wax leen lan mooy solo fi ñu jëm ñu ànd seeg ñun parce que xam nañu li ñuy teg pour intérêt Sénégal rek la ah man de yaakaar naa ni bu ma fa yàlla yóbboo parce que man ba may commencé di politique ànd ak sama secrétaire général Moustapha Niass 99 ni ba léegi ñi ma xam Thiès xam ma si sama mon engagement nit sax mënuloo waxal ni sa bopp gëm li ma nekk gëm valeur yi nekk si suñu secretaire général muy ay valeur socialiste nga xam ni lépp looy sonn da ko war a sonn ngir nit lépp loo am nga bokk kook doomu doomu adama looloo tax boobu ba léegi ñuy sonn te li koy firndeel rek bañ ma woowee ne ma ah ba ñu demee de xel yëpp ñu daj si yow yow lañu ñu gaawal nga ñëw nga joxe ni sa dossier ma ne leen man de yaakaar bi ñu am si man sama parti Benno Bokk Yaakaar waa cees ba yaakaar ni foofu ñu may yóbbu am naa fa cër dina am lu ma fay def bu fekkee lépp lu ma am duma ko bokk ak la population de Thiès département Thiès sama doole sama xam-xam duma ko fa def li ñuy wut yàlla bu ma ko am te loolu lu lu lu ma ñor la donc su ma demee la ñuy séentu si man te boobu léegi mu nekk mon sacerdoce moom laay fas yéene yeggale ko foofu waaw. def li ñuy njëkk def mooy gërëm suñu borom bi ñu may chance ñu toog fii tey. Euh, donc euh, di def donc euh, donc suñu devoir devoir d'élu dama ni au conseil bi nga gis nii dafa nekkoon proposition proposition boo xam ni président def ko teg ci référendum bi laaj sénégalais yi ndax d'accord nañu ci ba ko sénégalais yi waxee ba pare am naa yaakaar ne ñi nga xam ni population bi moo leen fal ñu nekk ay élus moo xam départemental la moo xam local li nga xam ni population bi bëggoon na ko laaj na ñoom ñu dëgmal ko donc euh, ñu teg ko parce que tout simplement yaakaar naa euh, voie bi wane woon nañu ko ba pare tey léegi c'est vrai ñu ngi fii euh, am naa yaakaar ni ñëpp ñi fi nekk en tout cas xam nañu seen devoir ñun benn Bokk Yaakaar wër nañu quinze collectivités yi nga xam ni mi ngi ci département de Thiès te fépp fu mu dem fi ñu dem dégg nañu donc baatu conseil yi ñoom ci seen bopp sax ñoo ñu gën a maîtriser importance bi am ci au conseil de collectivités territoriales parce que ñoom ñu ngi ci ay collectivité moo xam collectivité rurale la moo xam collectivité de ville euh, xam nañu ni euh, acte trois de la décentralisation boobu dina indil njëriñ donc euh, dëkk yëpp donc loolu moo tax am na yaakaar ni ñoom na nañu en tout cas massivement voté te am na yaakaar ni dinañu gagné parce que ñun aussi Euh, liggéey nañu li tax ñu gagné te yaakaar naa sénégalais yi comprendre nañu ni que euh, li ñu bëgg a teg nii lu baax.